salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora mbokki internet et Elvision Vision Média ñu leen wax encore une fois rek ngeen abonné suñu chaîne te dem visiter suñu site internet www.elvisionmedia.com euh, elvisionmedia.com ngeen télécharger suñu application lépp lu information ak lu leen neex rek ngeen fay fekk ñu ak yéen encore suñu émission lambi électorale parce que mo xew ci lañu jëm ñu fas ci bari suñu waar tay nak suñu troisième numéro ñu fas yéene ancien gloire yi su ancien gloire yi maître ancien roi des arènes ci la bokk moom Amath Dansokho ci la bok ancien gloire la mom mustapha niess ancien gloire la mom Ousmane Tanor ancien gloire la ndax ñooñu seen rôle ci lamb ji nga xamante mom lañu jëm ñu ngi koy doxal ndax ñooñu seen rôle nekkul rek bañoon xool ni Jimbori moo fi nekk mooy roi des arènes moo yor doole ji kon nañu ko faral lu mu wax na ni ko waaw ndax bu ñu fàttalikoo 2012 bi làmb ji di sàjj moom Jimbori nekkul woon favori waaye ñoom ñooñu ñëpp day ancien gloire faraluñu ko woon waaye bi ñu demee ba gis ni Jimbori mi moo qualifié final danoo daw làqatu ci ginnaawam faral ko dara ayu ci ndax bobu yaakaar rek lañu amoon sénégalais yi aussi am ci ñom yaakaar japp ni jimboori mii ñuy jàppale xëy na mooy mbër mi nga xamanteni mo mëna téy suñu koron defaral ñu luñu bëgg ci suñu arène am wala amul ñun dañuy ubbi suñu bëtt di xol en même temps dañu leen di déglu yeen yeen ay wax waye nak su ngeen ko gungé yeen ñi nga xamanteni ni ay ancien gloire yi gunge ngeen jimboori yalla def mu reñee beure na fi ay mbapat bëre na fi ay tournoi yàlla def yépp daf koy emporté gagné ko ñu koy ñaanal aussi mu jikko ko waaye ji ñu jëm mu doon lu sérieux mu doon loo xamante ni xëy na mën na ni musul am Sénégal ndax juróomi mbër kese ñoo war a sëgg dogal nañ ko ba pare kenn mënu ci dara ñu ñaan yàlla dem si ci jàmm ak salaam ndax yéen ancien gloire yi yow mustapha Niass yow Ousmane tanodien yow yow Ablaye ba ci tune ndax da ngeen a war a toog rek lu jimboor yi mi nga xamante ni mooy roi des arènes lu mu wax rek ngeen tàccu lu mu wax rek ngeen ni ko waaw loolu baax na déedéet war ngeen koo mën a delloosi ci raison parce que yéen yéen ko njëkk ci làmb ji yàgg sëgg bëre boobu moom da doon supporté yàgg sëgg bëre boobu da doon téye cummikaayu ancien roi des arènes ngeen yàgg sëgg bëre façon bëre bu nekk war ngeen koo mën a jox ay clé pour mu daan parce que yéen moom yéen far war ngeen koo mën a wax fan la mën a jaar ay adversaire am ba daan leen waaye nag war ngeen koo mën a wax aussi sa doole ji nga yor bul ko nappaaje yeneen mbër yi nga xamante ni amaguñu doole bul tànnal sa bopp ñoo xamante ni ñoom rek ngay bëreel waaye weesu nañu sax épisode boobu comme yàlla def na tànn nañ ñi nga xamante ne nii moom Jimbori moom la war a bëreel léegi li ngeen ko war a conseiller mooy nan lañuy def ba Sénégal dem ci élection jàmm ak salaam. génnaat ci ci jàmm ak salaam nit ñi continuer seen liggéey projet yi continuer ku gañe ñu xam ni kooku la yàlla jox roi des arènes bi ku gañewul mu tànte ji sansam beneen jour beneen ancien gloire bi nga xamante ne nii àndul ak yéen àndul ak jimboor yi parce que moom am na doomam doomam bëgg a doon roi des arènes war a bokk ci làmb ji nee nañ ko doo fi bokk waaye li jaaxal ñëpp mooy doomam ci boppam moom Balla Gaye di première cas nanguwul ñëw Sénégal pour won nit ñi ni damay bokk ak yéen naaj bi damay bokk ak yéen poussière bi nooy ci lacrymogène yi pour que ëllëg bu ma taxawee ci nguur gi jël roi des arènes bi fu ma taxaw ñu ni ma mérité naa ko kon yow mi nga xamante ne nii ancien gloire nga di maître premier euh, roi des arènes nga xamante ni roi des arènes bi fi nekk ci sa écrit la nekkoon lan mooy sa rôle ndax sa âge mayeti na la nga ñëw Sénégal ni da ngay bokk ci ay élection ni dangay ngay battre pour daaneel roi des arènes bi nga xamante ne nii lépp ginnaaw yàlla xëy na sa loxo la jaar est-ce que sa santé may na la nga ñëw di dem di nooy ay lacrymogène waaye moom mi nga xamante ni mooy jimboori du roi des arènes moom aussi mën nañoo taxaw ci moom mu bàyyi la xel bu baax ndax nag quatre-vingt-quatorze ans du xale quatre-vingt-quatorze ans du jeune bo xamanteni dafa wara wacc ci terrain nan da ngay battre campagne wala nga nan fal len ki fol len kele même sa dom sax tay yow maître di ancien roi des arènes yow sa dom sax bu bokone fa nga tok ci versailles fa nga wara tok rek su lokay koy nga conseillé ko yalla def na nenañ du bok waye lamb ji mom day am ala kuli al bo ne da ngay ñew pour salfaañe lamb jooju pour mu baña am lu ne da cee mëna am ñaanu ñuko yalla waaye boo ñëwoon tey wàcc si terrain bi ni da ngay xeex ba safaan dal la ci su boobaa Sénégal kenn du ko ko baal su boobaa deru Sénégal rek moo yaaxu te liggéey nga fi yaakaar naa loo xamante ne toog téye sa piliyaan bàyyi sa doom ndax yow ba ngay xeex vingt ans amoo woon bàyyi boo xamante ne ancien roi des arènes la mu topp sa ginnaaw war laa jàppale ba ngay xeex vingt ans di tëdd ci kaso yi ay doomu jàmbur dong ñoo la doon xeexal ba ngay xeex vingt ans ñu di la dóor ay nga nan jël leen ay chaîne vélo bobu ay doomi jambour dongu ño andon ak yow sa doom musul wona ñew tay nak sa doom magna bëgg na bok ci mbër nenañ ko doo fi bokk na wat sansom parce que yeen politiciens yi suñu leen topé amana sax ñun ngeen di nax ndax tay su fekkonté ni dëgg la rek ba dëgg la rek mom premier cas di Balla bëgg xexlo nit ñi fi chaque jour ñu ni dina ñew du ñew warulaa mën a jaral ngay ñëw fi naan da ngay rey sa bop ci naaj bi yow maître premier roi des arènes kooku ñu la koy ñaan bul wàcceewaat sa bop ci terrain bi yow mi nga xamanteni ni yaay jimboori di ans di roi des arènes yor pouvoir nga xamanteni CNG électoral CNG de de la lutte CNG bi nga xamanteni ya ko tanal sa bop muy ay juroom ñaar ño xamanteni ni ni ñoom ñoo war atté nañu néna diw ak diw ak diw ñoy bok sénégalais yi mënuñu ci dara dañ ci and ak yow ku bëgg dem voter demal nga voter ku bëggul voter limay wax rek lay waxaat bu len kenn jaral gaddu xéer di sanni bu len kenn jaral gaddu jaasi di dóorante bu len kenn jaral dem di xéx ak ay policier wala ay gendarme parce que buñu falo seeni dom ak seeni njabot dong ñofay top ku weddi laajal domi xalé yi jàppoon fi ci kolobaan ba léegi nii ñu nga ca kaso ba te ba ñuy xeex doomu jimboor yi mu ngi fa woon wàcc doon ci terrain bi xale yooyu bi ñuy rey seen bopp ci àll bi doomu jimboor yi ak doomu ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi woon wàccu ñu woon ci terrain bi te ba léegi xale yooyu ñu ngi ci kaso yi seen yaay yi ñu ngi sonn seen papa yi ñu ngi sonn ku ñaan ñu bañ kon bu benn sénégalais bu benn jeune wàcc ci terrain bi naan yaa ngi sànni xeer wala ngay dóorante jaasi wala ngay dàqanteeg policier benn arme la am muy carte bu jour ba jotee ba làmb ji sàjj ku mu neex nga dem tànn sa mbër lu yàlla def ñu xam ne noonu la ay élection yàgg naa am senegal jàmm di fi am kon ñun bu ñu mujjee puso bi mu réer ci suñuy loxo xaayaan nag ku dégg séeréer jërë ngeen jëf